ce euh, la ci luma dama koy dama koy moytu mais Bakar mom dafa sew donc yow tamit nga la comme prière chrétienne euh, euh, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés donc vraiment na la je ni sama xol ëmbalu la ludul yiw na mais donc euh, di la wax ni djegal nañ la bu baakha baakha baax ndax mës ngaa ne ablay Wade du won opposant bi mu nekkee ci opposition ñaata yoon le jóge ci position d'opposition dugg ci gouvernement de majorité élargie bu élection ñëwé mu génnaat jàkkaarloo ak parti socialiste ba niñu len gagné en 2000 man suis ma première fonction ministérielle ministre du commerce de l'artisanat et de l'industrialisation, Man gouvernement Abdou Diouf ci jamono est ci indi d'ailleurs, ci indi internet conseil des ministres bu Abdou Diouf mu ne ne ben mbir bu bu bu bees la ñu jublu ci ba ba ba Sonatel def li mu a def ba connexion am lolu ndariñ la won mais terewul bi élection yi ñëwé dama nekk directeur de campagne ñu xex le même régime socialiste gagné en en 2000 je pense que sénégalais yi euh, ñor nañu ci lolu duma wax ni amul ñuma méré ci wuy ji bi ma wuy ji Macky Sall bi Covid bi ñëwé lolu c'est clair. Mais mon statut d'opposant ne s'est jamais démenti. Puisque, sur les questions essentielles, par exemple, troisième mandat, bi, ah, Bokuna ci ñi ko a wax ni warul am ci sous forme de prière en privé comme en public xam nga li am solo la valeur yi ngay xeex puisque nekkuma ci opposi opposition euh, par principe ou par métier ou par vocation ma vocation c'est de gérer l'État c'est d'exercer le pouvoir Ce n'est pas de m'opposer moi je suis pas un opposant professionnel qui dit je reste dans l'opposition pour mënti au pouvoir je opposé ko déedéet dafa am luma ma bëgg ñu doxal ko ci Sénégal am na ci wax yooyu au Sénégal mom la wara xex pour exercer ko ci ci ci Sénégal donc perception bi nak maîtriser wu mais en tout cas li nga xamni li mom la laa doon xeex ca jamonoy soppi ja ànd Ablaye Wade ba légui la bëgg ci Sénégal moy un état de droit réel puisque libéralisme ñaari yëf rek la benn bi moy nit ku nekk yalla daf la jaglel dignité ak ay liberté Yo xamni ni défendre ko jarna ñak sa bakkan yow mi malal wala der wala man ku ñu bëgg a toroxal piétiner ñu fokk ñu fippu lolu motax d'ailleurs à travers l'histoire esclavage dafa muju daanu dafa jeex colonisation dafa jeex puisque bépp xeetu nooteel boo teg nit ki dana am jamono nit ki donc liberté yoyu droit yoyu dignité bobu protéger ko la mission première du libéralisme ensuite nous avons bi moy nit ku nek suñu borom daf ko ay capacité mu am lenn lo xamni ci la développer jariñ jariñ société jariñ askanam ñu ne ci état waru ko ci gàllankoor daf ko ci war a may liberté muy xalaat exprimer même bu dee juum na am liberté ak sañ-sañu wax erreur rectifier ko après et cetera mais liberté moo war a jiitu moo tax boo bëggee jiite un état liberal de droit moom laay wax toujours il faut dilater sa poitrine xajoo lépp luy mën a génn moo gën a facile nga jéem a euh, réprimer xalaat yi puisque si nous doon réprimer les yi Galilée doit la terre est ronde Einstein du dire lenen etc. puisque xam-xam yooyu yëpp yalla daf ko ay doomu adama ay circonstances tax xam-xam di di liberté